ki nga xam ni moom mooy monsieur Bakary Doumbia mooy chef de mission bu OIM sunu collaborateurs yi nekk ak collaborateurs yi nekk OIF euh, OIM dañuy sant yàlla sunu tàmbali wax si dalal bi nga xam ni OIM dalal nañu ko fii ñun waa ONFP tey nag mu nekk bés bu mag si man ndax convention bi ñu nar a signé mooy nekk convention bu ma njëkk a bi ma jëlee direction wu office national de formation professionnelle lii nga xam ni ñu ngi ko bëgg a tey ak organisation bi ñuy wax organisation internationale pour les migration muy organisation boo xam ni ñëpp xam nañu taxawaayam ak liggéeyam ci wàllu jàppale ñi nga xam ni dañuy tukki si kaw tukkuwin boo xam ni du ñu jaar fi ñu war a jaar pour mun a am kayit yu ko waral ba ñu mun a tukki seen taxawaay boobu nag ñu am moom moo indi gouvernement Sénégal 2015 mu signé woon ay accord yoo xam ni waa Union européenne si lu ñuy wax fonds fiduciaire donc d'urgence bu gouvernement sénégalais signé si diggante Sénégal Union européenne ak OIM moom moo tax OIM ñëw jege waa ONFP waxtaan ak ñun pour ñu xool si biir loolu nga xam ne gouvernement Sénégal jël na ko engagement pour saytu wàllu migration nan la ñuy mën a liggéeyee ñun suñu biir ba nga xam ni ñi nga xam ni dañuy nekk ay migrants dellusiwaat si réew mi. ñu mën leen toppatoo toppatoo bi nga xam ni moom moo war ci ñoom ci biir toppatoo boobu moom la office nationale de formation professionnelle war a tëgg ay formation professionnelle formation yooyu ñuy tëgg nag dañ koy tëgg lëkkaloo ci ak waa organisation internationale pour les migrations mu war a nekk formation yoo xam ni dañ koy jagleel migrants yooyu nga xam ni ñibbisi nañu lu ñu jublu ci formation yooyu mooy lan mooy ñu mën leen may ñu am métier am qualification ba nga xam ni li taxoon ñu bàyyi seen réew dam uti bitim réew ñu mën ko ut fii ci biir réew mi ndax bu ñu amee qualification am diplôme dinañu mën a dugg ci entreprise yi liggéey wa ilaa bu ñu paree formation ak li nga xam ni tey jii gouvernement Sénégal taxawal na ko ci wàllu financement muy waa DER muy waa FONGIP wala waa ANEJ ñu nekk ay financement yoo xam ni am nañ ko di ko jagleel ndaw yi bu ñu leen former ñun waa office nationale de formation professionnelle ba pare dinañu mën a tëgg seen projet tëggin boo xam ni buñ ko yóbboo fu mel ni DER dinañ leen mën a financer pour ñu am financement mën a def lu ñuy wax auto emploi maanaam am seen liggéeyu bopp kon boog loolu moom mooy li nga xam ni moo ñu fi indi tey jii ñun waa ONFP muy mottali loo xam ni gouvernement Sénégal daf ko jël comme engagement ci wàllu migration pour que ñu signee benn convention boo xam ni li ñu ciy liggéey ak waa OIM mooy fexe ba jox métier fexe ba jox qualification migrants yi waaye itam bokk na ci biir convention bi ndax luñ ñaan fagaru dafa baax lépp loo xam ne day jëm ci wàllu sensibilisation wàllu communication pour gën a mën a yee ndaw ñi ci li nga xam ni moom mooy yoon yi ñuy jaar pour dem bitim réew mu nekk yoon yoo xam ni ñu bari dañ ciy bàyyi seen bakkan dinañu gën a communiquer ak ñoom xamal leen ni am na yoon yoo xam ni buñ ci tegoo mën nañu dem fu ñu bëgg a dem am kayit yu ñu war a am liggéey ñibbi waat Sénégal mën a dimbali seen njaboot. kon boog convention bi nekk na convention boo xam ni convention bu am solo la ñun ñi nga xam ni ñooy waa ONFP bu soobee yàlla lépp li nga xam ni dafa nekk engagement boo xam ni jël nañ ko ak waa OIM dinañ ci taxaw suñu kéemtalaay kàttan ba ni ñu ko bëggee ñu mën ko taxawee noonu ba ëllëg li nga xam ni mooy engagement wu gouvernement du Sénégal ñu mën ko respecter mën ko accomplir kon boog monsieur le représentant le chef de mission OIM ñu ngi lay gërëm encore une fois si lii nga ñu may muy opportunité pour ñu ñëw fii war a liggéeyal sunu réew war liggéey ngir jàppale migrants yi ngir jàppale leen ñu am métier ba mën a mënal seen bopp toog seen biir réew kon boog loolu mooy li nga xam ne moo ñu fi indi woon tey.